baatin la loolu yéeme la loo xam ni yaakaar naa waaw donc ma def ko le 5 mai su ma ko defee le 5 mai yàgg naa koo def journée merci wax dëgg yàlla di di sant nag restaurant Eldazi ci sponsor bi ak ànd bi ma ko ànd ak ñoom euh, wax dëgg yàlla ku ne gis na tey moo ëpp moo ëpp doole sax bu daw moo tax Mor moom ku yóbboo di ko tuddee bis rek Mor Gueye sopp bi ku yóbboo di ko sargal non sérieux parce que tey salle bi kenn amul fu mu kenn amul lu mu àndal de lu ma xamul mais y a quelque chose bi tey kenn amul fu mu toog ma sargal ko euh, en fait euh, moom daf ma sopp daf ma bëgg ba pare muy def lu baax nag c'est que mën naa koo tuddee le messie teg ci en parenthèse solidarité maanaam ñi ñii def solidarité kenn gënu ko ci te kenn gënu ko ci ëpp lu muy def li mu maye ci ay oto kii wax na ko sant nee na ñoom ñi ñëpp kenn ku ci nekk ak ay oto te moom moo ko yëkkati jox la ko mais waxuma sax loolu mais li muy yëkkati ci ay nit di leen jàppale di yóbbu nit ñi ay Makka di yóbbu nit ñi ay Fès ñu dem di ziyaare ji yonent bi loolu beneen dimension la kooku bu nekkee foofu te du ministre de wala muy DG non non non du ministre nii DG mooy nam la koy yëkkatee di ko def ma dëkk Thiès euh, su ma xewlee mu taxawu ci kooku kon. ñu ma koy sargalee jógey Roqi Demba Matar ba ko jë war ko mën a sargalee <laughs> man dialogue lay woote donc dialogue mooy jubóo mooy jàmm mooy paix donc su wootee dialogue mais na Ousmane dam wuyu ji dialogue bi wuyu ko ci moom su fekkee d'accordul ci troisième mandat moo taxaw wax ko ko mais boo d'accordul ci dialogue ba pare nekk sa coin di wax ne lii du ci am mënoo wax loo xamante ne nit ñi dinañ la comprendre mënu wootee dialogue rek il suffit que mu dem wuyu ji ko wax ak moom comme ni ko ñëpp di nangoo loolu mooy bul xasee wax ni dialogue moom dafa woote ci jàmm woote ci paix mais bu nee dialogue nga def beneen sens ni wala garsa garsa wala nga indi beneen dimension loolu loolu beneen beneen détail lay indi mais man je préfère li ma ko doon conseil mooy comme dafa woote dialogue donc Ousmane dem wuyu ci dialogue bi wax ak moom su fekkee d'accordul ci moom mu wax ko ko lépp lu ko naqari ci moom moo xam pétrole la moo xam lu mu daan kaas day taxaw wax ko ko mais loolu moom mooy moom la yëpp président moom li ma koy conseillé en tant que Serigne Moustapha Mar borom Thiès bay boo lépp ñu tiitre ko tagg ko xole ko fu leen neex man ku xam na ni président dama ko jàppale woon 2012 mu am ndam ma jàppale ko 2019 mu am ndam ki taxoon ma jàppale ko mooy le ministre de l' agriculture Aly Ngouille Ndiaye moo taxoon ma jàppale ko am fu mu jaaroon ak moom mais xool naa ba xool ni jëru ndax li tax ma ne jërëjëf mooy man ci boppam man ci boppam ku gis fii tey jii mbooloo mu bari nii nga gis ko Thiès nga gis ko feneen ak feneen mënuma di ko woo ay at soxla audience ak le président mënuma ko am te Aly Ngouille Ndiaye ni mu mele ak man bokkoon ak sama nijaay lépp jàngandoo moom defandoo lépp nga xam ni dee moo leen tàkkale tey jii mënuñu def tout pour ma am audience sama audience du intérêt personnel mais intérêt askanu Darmanko ak askanu réew mi moo tax suñu tali baa nga ne di jëmmul à 16 kilomètres après nga la depuis des années ñu di ci jaar mu metti ñu ñu soxla ko ma soxla audience ak moom toog ak moom waxtaan ak moom mais man kilifa la pourquoi pas muy recevoir ay rapport di recevoir ay jóge di recevoir keneen ak keneen te boobu ba léegi président mënu ma recevoir non non man je parle Aly moom moo taxoon ma jàppale woon ko parce que dama doon doxal ak sama sama nijaay mais dama bu ma ko mënee wax damay jàpp ni euh, bon je peux a gaaw ci titre amul solo daal naa wax ni moom amul solo. Macky dama ko bëgg quoi je l'aime beaucoup vraiment dama ko bëgg en plus it dama dama dama bëgg sax même troisième mandat dama bëgg mais du ma pour le moment en fait comme ñëw na. moom Idrissa Seck pour samp ndëm bi mais loolu amul benn jafe-jafe na dem rek demande laajte présenté au candidat comme ni ñëpp di présenté au candidat léegi nag ça dépend ci nit ñi nit ñi ñooy gëm ko soit que ñu weddi ko